ci teewaayu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mbacke Madina Serigne Cheikh Gaynde ak Serigne Cheikh Mbacke Aliou moom Cheikh Serigne Aliou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha ci teewaayu Serigne Cheikh Coro ak Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma ci teewaayu Serigne Hassan Gaynde Fatma ak Serigne Baara moom Serigne Mahmoudan ci teewaayu Serigne Abo Mbacke soxna Bintu ak Serigne Xaadim Mbacke moom Serigne Sidil Muxtaar ak mboolem njabootuk Daaru Xuddos gépp ak talibe yi noo ngi fii tey ci daarul xuddus ci kanamu kilifa gu mag gi di sëñ ahmadul muxtaar bu ñu fi toogee nag xelum nit nit ñëpp danañ dellu ci bis boo xamante ni nii kenn fàttewu ko muy ñaar fukki guddi ci aw tamxarit di bis bi nga xamante ni nii ci la Cheikh Mouhamadul Moustapha jëlee won sunu yakar serigne Cheikh ahmed Bamba andi ko ci dëkk bi nga xamanteni ni moko gënal ci pakki suuf yi bis bo bi nak Cheikh Mouhamadul mustafa waxon ni juboo ak ci kep ku fi fanan sun borom jéggal say bàkkaar bis bo bi la Cheikh Mouhamadul mustafa waxon ni yitte ju jar baña fanan ci si guddi muharram sun borom sàkku ko bis bo bi la waxon ni mbollem ñi nga xamanteni ni ñu bax lañ ci digënté kaw ak suuf te gunge woon Cheikhul Khadim saa yu bis boobee delsee danañ ñëw fii fanaan fi ak moom bis boobu la waxoon ni képp ko fi fanaan ak ñoom mbaa nga riisoo fi ak ñoom suñu borom dana la jéggal say bàkkaar ginnaaw bu ñu sante yàlla jullu ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam gërëm ku tedd ki ñoo ngi jéggalu ci kàddu gi ñu yëkkati ci kanam suñu sang bi di Baye Ahmadou Makhtar waaye ginnaaw ndigal la ñu yëkkati ko eh, ci turu njaboot gi yëpp ci eh, rawatina Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñam di ko nekkal ci njabootu Cheikh Mouhamadou Amine Bara yebal ñu maag sëñ xaadim mi ñu ñëw ak njaboot gi yëpp teew fi fas ko yéene ànd ak yow ni nga ko bëggee woote ko bis bi nag ni ko sëriñ bi waxee dégg ngeen ko mooy bis bi nga xamante ni ci la ku tedd ki ñibbisi fii tànn bis boobu ngir dëkkaale ko ak boroomam te mooy bis bi nga xam ni moom la ñaanal yàlla suñu boroom ni ko maa ngi sàkku ci yow nga defal ma bis bi gën ci samay bis mooy bis bi nga xam ni ci laa lay ñëw dëkkaale si yow bis boobu kon moo dëgmal si nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit bi di ñaar fukki guddi ci weeru tamxarit bi incha allahu muy dajeeg ñaar fukki fan ak juróom la le 28 août sëriñ bi nag di ci woo jullit yëpp rawatina taalibe yi. muy sakku ci ñepp itam fu way nek nga magal ko ci alquranul karim ak xasaayiti serign bi ak tuddu yalla xam ngeen Cheikh Moustapha al Karim mi nga xam ni moo jëkke wote magal gi de ngeen ni ñu ko waxee mooy ab julit waxuma la talib way kuy julit ta man ko war nga ñew fi france Touba ngir magal bis bobu ndax li ñuy xante woo ñun juliti moy tagok ak Euh, kon nag koo xam ne danga nga fay ñëw yàlla musul la ci jéggal la tàggal tàgg nga tàggoo ak i bàkkaar ba mel ni bis bi nga gane woon àddina loolu jar na fu waay nekk nga bàyyi ko ñëw fekk si bis bii. bismillahi rahmaani rahim. mbokk yi fi daje di yëgal it ñu te te gis leen wax li waral daje bii tey muy màggal. gi ñu daan defal gi ñu daan defal sëñ Touba at mu nekk moo jege moom lañ moo tax ndaje fi di ko yëgle ginnaaw bu ñu tàggoo sëñ Mountakha Mbacké ba am ci maam digal moo tax ñu leen ko yëgal tey ne daañu ko def ñaar fukki fan ak juróom-ñett août ci mois de août euh, léegi rek. dañ ko màggal ñu ngi yëgal yëpp ne ko màggal ñu ko defe daaw muy sàmmonte ak yi nga xam ne moom la jàngoro ji di bañ muy kuy ñëw màggal si nag takk say masque te raxasu respecté dànnante bi loolu mooy tax mucc ci yàlla dogal mën naa def ku ci jaar yàlla busal la ci tawat ji da nga ci musli yow itam ndax doo wàll kon nag na ngi ñaax ñëpp ñu sàmmoonteeg yooyu ñu ko defee yàlla mën na ci musul eh, léegi nag noo ngi yëgal ñëpp bépp taalibu mën a ñëw na ñëw boo ko mënut nga def ko sa kër jàng alxuraan jàng xasida berneel ñi nga dëkkal te ñaanal ki tax ñuy màggal ñaanal jullit jëpp ànd yoon yëpp kon mbokk yi ñoo ko déggandoo mbokki jullit yi umma islaami bi sëriñ baa ngi yëgal ñépp di leen fàttali bis boo xamante ni ni bis bu am solo la ci ci yoon wi bis bu rëy bis bu suñ borom doxañ lu bare bari ngir bis boobu yi la sëñ fanaan si ci dëkk bii nga xamante ne ni képp ku ko bëgg a siyaare fi nga koy fekk inna allazina sahidu fi lmaaraka mujahidina kulla abin musrikin li na walun kulluhum yaxbitu nii wa kullun saairun li watani fii la sëñ Tuubaa dëkk mu ngi koy fàttali ñëpp waaye ñu xam ni ci biir réew mi ak bitim réew mi fépp lañ koy taxawe ca Côte d'Ivoire bokki taalibe ya fa nekk yëpp àndandoon nañ ci njiital si Cheikh Mariama di ko taxawu foofu ca Mali itam bokki taalibe ya fa nekk yëpp ci njiital taalibe Daaru Xuddos yi ak Serigne Mame Balla Mbacke ñoo nga fa di ko taxawee état yitam ak ni contexte bi demee tax na taalibe yi ñoo ngi koy taxawee kenn ku nekk ca barab yam nekk waaye sëriñ bi joxe ndigal itam ci mboolem diaspora bi muy daayira yi aju ci kiir kër gi ñu lëkkale seen bopp mu doon benn ñuy wax ni seen bisub siyaar ajjuma ji nga xamante ne nii moo sës ci màggal gi bu del see lañ koy def waaye bëgg nañ ñu defandoo ko benn yoon àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo tey dénkaane nag mbooleem li nga xamante ne nii moom la waa santé di digle ñu sàmmonte ak moom waaye nu lu ci yàlla te bàyyee ko suñ bopp te doyloo ko te xam ne li yàlla namm rek loolay am waaye li nu digal nu sax ci te fas ko yéenee jëfee ni nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee ñuy def tawassul ci jëmmam ak barab bii mu toog ak ñi mu wuutu ak ki tax muy woote ak kii ko fi nekkal sun boroom jële fi mbas mépp jële fi yépp jafe-jafe indi fi naataange barkeb sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.